joxuñu leen paas sax dañu leen ko sax dañu leen ko jox kon Thiès vraiment li muy participer mu ngi participer si gàmmu Caraw kon li may tijjee samay wax mooy ñaanal leen ndax li ñu dafa rafet euh, seen i moyen la ñuy déplacé wu ñëw ak seen engagement kon loolu yàlla yàlla gën a yokk télé bi yóbbu ko foo xamante ni passé na sax lañu yoon ba ba raw ci télé yëpp nag la ñuy ñaan jaajëfal suñu pap mi nga xamante ni moom suñu man naa ni tey fi ma toog di wax man na fee toog li may laaj it mën na koo toll ndax ñun ñëpp benn lañu ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu boole mhm. ak suñu kilifa alxaaji Mor Gueye soxna bi sëñ Massoum bu moom ñëpp ko ràññee na bi mhm. euh, Ndour ingénieur nga xam mooy wàllu administrateur administratif ci wàllu soxna bi ñu ngi toog kii toog it di Serigne Ousmane Faye mhm. di kenn ci ñun di kenn di taalibe ci kër bi di doom di lépp euh, bu ñu ñëwee toog fii nag wax dëgg yàlla ñu laaj ñu ci gàmm gi laaj ñu ci yonente bi lu ñu gàgg-gàgg yi suñu xool sedd suñu kii yoon dañ ci jéem a wax mhm. mooy gàmmu Thiénaba mhm. boo gisee ni ñu ko tëggee eh, nit boo xoolee démb lañ ñëw genn guddi lañu am ndax bu njëkk mag ñi dañoo fagaru woon fegu woon ci lu bëri mhm. mooy bugguñu kenn fanaan fi ci leneen lu dul ci wàllu yàlla mooy dañ daan xëy ñëw guddi gi ñu gàmm bu ñu xëyee heure bi ñuy ñëwee ñëpp ngeen dem leen ñëpp ci penc ñu lañ daan dagee ndax dañuy bañ mbooloo fu mu dajee fanaan am leneen bëgg faa nekk yooyu taxoon ñu fa tëggeewul ko noonu Thiénaba nag ñëpp xam nañ ñuy dëkk la ci dëkk yi lislaam yi ñi ko fonde maam Ahmadou Ndaak li may wax chaque jour nii fekkoon dafa yemoon ci bañ ko joxee reetal ni ko diine ngi bëgg a sëggam ceddo yi day jaar nañ sama kër lakk samay daara bi mu ko yëgee booba mu ngeeg pouvoir yi maam Ahmadou Ndaak booba mu ngeeg jàkk mu ngeeg dëkkam yilif ko yore ndongaam yori taalibe lii lépp sëriñ di tiitaroo rek amoon na ko waaye jour boobu ci tàkkusaan boobu dama ne jihaat gi njëkk a jihaat foofu rek bu fa yemoon sax am na ndam ba pare mooy dafa tas daara yi jéggal soxna yi ni képp ku ma àndoon ngir yàlla yàlla woote nañ dem képp ku ma toppoon ngir leneen ah, man man yéwi naa am ku ni sa benn taalibe bu ni ko man de sama papa dalaa jox dama daa amoon yéene ma mokkal alxuraan indoo ci yow yéene jooju nag amoon bu ko seen mu ne ko ŋaaŋal mu ŋaaŋ mu jël baaraam rof ko ci gémmiñ mu mokkal alxuraan bi muy dem di wuyu seexu jaarul ci yoon mhm. si daa fëtal rek ñu naan ko waa góor gi foo jëm yow jaaroo ci yoon mu léegi may jàkkaarloo su ma ko def dee ba ci kaw ñaari at yoo xam ni mu nekk ci diggante fital ak ak ak ak ak xijaas yi te bàyyi dëkkam bàyyi njabootam ba léppam kon loolu xeexal diine am na ci ndam moo la waroon nag ba mu dee ba ñëw tëdd fii samp dëkkam bii nag di fi tere di fi di teg fii siraatal mustaqim moo tax foo mën di dem booy seet Thiénaba yëg ni fii am na lu fi nekk noonu la ko def tëdd ci ginnaaw jumaam ji kon kooku wàcc na dama naan euh, Samba Sadio léeg-léeg ñu koy wax mais doon jour boo xam ne 40 personnes 300 personnes la ñoon ñee doon ñee fa daanu mat 400 personnes loolu Sénégal dañoo waroon chaque année bu ñëwee ñu dem ñaanal ñoo yëpp xam ne ay jàmbaari fakk tëdd fa des kon kooku bu nga xam ne moo sañc Thiénaba gi Euh, di dëkku diine nag di dëkku lislaam lépp loo xam ne lislaam day koy bañ rek canaba da koy bañ lépp lu mu bëgg euh, li cana lislaam di tere canaba moom te noonu nag la réew mi yëpp àndandoo di gàmm te gàmm gi ñuy gàmm nag ki ñu koy gàmmal nag kooku moom mooy dañ dëpp gi hmm. ndax ku raw rek ci yonte bi nga rawee waaye ku ñu rawee ci yonte bi nga rawee bu gisee mag ñu baax ñu amoon ñëpp dañoo jël seen lépp pousse ko yonent bi ndax mooy marché bi nga xam ne amul pertement la boo xam ne amul pertement loo ci def rek lay lay euh, kilifa da koy wax maanaam boo xamee yonente bi rek bëggal rek lay wax moom daan na nga bëgg yonente bi rek boo ko bëggee lépp baax moom foofu la toll fi moom boo ko jéem la bëggal rek boo bëggee lépp baax moom tam di jàmbaar di di kenn si ñun gàmm gii mu def ci lu bëri ndax tey jii man mi yónnee na ma nag yónnee na ko fii yónnee ci biir dëkk bi li mu fi def ci ci teraangam kenn xam lu toll te noonu la ko defee Touba noonu la ko defee eh, noonu la ko defee Ndiassane noonu la ko defee Tivaouane Pape xam na ci dara te bu koy def da ngay gis ni yëg-yëgam ak bëgg-bëggam ngir yonente bi da ngay nungu di kii dafa bëgg yonent bi man dama koo nungu nee ko man léegi-léegi sa jëf dama koy xaw ndax ni ngay jëfee ci yonent bi ndax yonent bi moom def danaan yonent bi def écarté wu moo tax jëfi yonent bi ko mère ko yonent bi moo la ko jox ma ne nag gars yi yéen Mansour boobu boo leen di wayeti bi li muy maye den ci boole oto ndax or gay gi alaaji moor moo ngi maye oto naan yonent bee ko joxe kon jëfi yonent bi la sox ci loxoom lu mu def rek ni yonent bee ko def kon yonent baa ngi def ba léegi moom foofa ku fa dugg ah di nga xam ne nag di bi kenn la kon euh, sëñ Pape xam naa li ciy wax kii nag toog sëriñ Ousmane Faye mii kii yàlla daa dogal sama waajur moo ko dugal ci diine l'islam moom mii sama papa ko fekk ci benn atelier bi ko fekkee ci atelier da ko ñëw nuyu ko di ko Ousmane moom mii man na ko nete waaye ni ko ah Ous kii papa Baye Talla kii kii kii keneen la tuddul Ousmane mun yàlla ma ci yàlla fekk sax ba mu demee la yëpp leer ci biir xolam dëkk ba ñëpp la jël indi leen ñu tukk man moo fa demee waaye yow mu dëkk seen dëkk ñëpp ci moom ñu la waaw ndax nag dama naan moom yàlla rek ko man yàllaay xool xol jàmm bu ko dem mu sànni ca leeram waaye tuubal nit kenn mënu yàlla woon yàlla kon xooloon seen xol yi sànni ca leer sama papa mu jaar ci loxoom kon Ousmane mii toog suñu wet ma seedeel leen ni looloo ko indi fii kóllëre ak mbokk euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla moom itam yàlla yàlla dolli may waaye dolli xéewal di leen ñaanal sëñ Pape di ñaanal sëñ Mansour euh, Ndour taxaay rafet na